الحديد والكاف براس من بارز سليب براس من يبارز ملتقما بارز من إذا طلبت ميلاه جلبا وإن سلبت بلاه سلبا لجاد في توحيد ربي الأخاك مزجاد لي بقل والله أخاك الأمراض وكفنا الأنكر باختراد لا زكريا على حياتي أفضل قديما فاز بالخيال أذكر شكر الذين شربا من أسبي وللجنان خربا لا ترى لغيري معجزا أربانت لأن غيري يجود للجواد بالجهاد وسال لي يكون ذا القياد أيان الباقي بلا إماتة ولا تنازل ولا سماتة السماء ولا ألاقي كل من تعصم أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال قائلا soxna Aida Saliou Thioune yàlla na fi yàgg loolu te gën a jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou ginnaaw buñ sante yàlla julli ci géeri géer Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di gërëm sunu sang ba Serigne Saliou Mbacké Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Touba yal na yal na yàlla seral ay yaxam ci àjjana sëriñ Béthio or sëri bi Serigne Béthio mu tedd mi mi waral jotaay bi dimbale ñun waa cees bàyyi noog jëmm ju tedd ji di soxna da Saliou Thioune mi nga xam ne mooy dëgg-dëgg Serigne Béthio mu fase ñoo gane si fase na ñëw Thiès ak leeram ak xéewalam ak yërmandeem kon waa Thiès pare leen am ngeen gan gu tedd am ngeen gan gu baax am ngeen gan gu yiw kon waa Thiès ñu ngi leen di woo yéen ñëpp lakaat ngeen ñëw fii ñu teeru suñu gan gu tedd gii teeru suñu gan gu sell gii soxna soo xam ne defal yàlla rek moo ko tax a jóg kon waa Thiès woo nañ ñëpp man Serigne bas Bamba xéwal maa ngi leen di woo maa ngi woo képp koo xam ne sama soppe nga ak képp koo xam ne xam nga ma ak bépp kilifa boo xam ne mi ngi ci biir Thiès woo naa la nga ñëw ci bis bu tedd bii nga xam ne jëmm ju tedd ji nga xam ne dara ñoru ko lu dul islaam liggéeyal yàlla rek liggéeyal yonent bi liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Saliou Mbacké liggéeyal Serigne Béthio mu tedd mi nga xam ne ñëpp moom la ñuy jooy waaye nag ñi ngi woo ñëpp bàyyiwunu kenn amul tijaan amul murit amul xaadir amul laayen képp koo xam ne dégg nga kàddu gi rek woo nañ la la kaat nga ñëw fii ci place bi ñu sant fi yàlla sant fi yonent bi sant fi Serigne Touba màggal sëriñ Béthio soxna Aïda Saliou Thioune yàlla na fi yàgg te wër kàddu gi nag ginnaaw bu ñu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati kàddu wëllëre kàddu mbokk kan moo woote soxna Aïda Saliou mu seex Cheikh ci Thioune fu mu lu muy woote cant mu fasirinu ba nag dani yëg mooy waral cant cantit mooy waral dolliku koo munta tere mu sant mënoo ko tere mu dolliku koo munta tere mu ñaan mënoo ko xañ ñu jégal ko ay bakkaaram koo mënta tere mu tuub mën na koo tere yàlla jégal ko ay bakkaar lii nag sant la koy sant soxna Aïda Saliou mu Cheikh Béthio mu baax mi ca alxuraan dafa am lu mu wax masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi yàlla dafa wax ni dee leen joxe ci li ma leen di jox ñun nag li ñuy yëkkati ñu yëkkati kaddu mooy dafay joxe di joxe ci lislaam daara yi merewuñ ko l'islam bi merewu ko ñun jullit yi ne fii ci région Thiès ak yeneen i jullit merewuñ ko kon soxna ayda bu wootee ñu dëkk Thiès juddoo fi yaro fi muy fa tabarakallahu jigéen ju tedd ju yàlla baaxe am ngërëmal it nag Cheikh Béthio mu baax mi Cheikh Béthio it am ngërëmal Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla tas si barkeem kon boo wootee bisu cant fa tabarakallahu ñu ne ci Thiès di wuyoo ci l'islam kon istajibu lillahi wa li rasuli isa daakum li maa yuxikum loo tax moo tax nu jóg sunu borom nee na buñ leen wooyee ca woote bay dundal xool na ngeen wuy ci moo tax ñu wuy si fa tabaarakallaa sunu xaalis xëy na le 4 juin fii ci place bii fii ñu toog ngir lan sant fa tabaarakallaa sunu xaalis xëy na kan Cheikh Béthio sant kan Serigne Saliou Mbacké te sant Serigne Saliou nag mooy sant Cheikhul Khadim Serigne Touba. su ngeen déggee sunu kàddu fii nga xam ni fi ñu toog muy promenade des Thiessois fii ci Thiès fa tabaarakallaahu ngeen xam ni bis bu rëy moo xew. kan la ki nga xam ne mooy soxna Aida Saliou Thioune mu tedd mi fa tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla na fi yàlla gën ko fee bàyyi ci daraje yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam muy bis bi nga xam ni bisu cant nga xam ni daf koy indi fii ci Thiès ci promenade des Thiès waa fa tabaarakallaahu nag ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkkee Thiès ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi kilifa aada yi ak mboolem dawaayir yi nekk cees yëpp amul murit tiijaan xaadir laayeen bàyyiwuñu kenn ndax ki ñuy teeru mooy soxna Aida Saliou Thioune mi nga xam ni daara yi xam nañu cëram ah, ndongo daara yi xam nañ cëram sëriñu daara yi xam nañ cëram kilifa diine yi xam nañ cëram ndax lu baax li nga xam ne moom lay def ci diine di ko def ci daara yi bis bi nag la 4 juin lay doon incha allahu rabbi fii ci promenade des Thiessois bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn bàyyi ñu ñenn ndax soxna Aïda Saliou Thioune l'islam bi fa tabarakallahu la fi nekkal waaye it mbooleem ñi nga xam ni képp koo xam ne rek yaa ngi doomu aadama nga moo xam chrétien nga sax soxna si bàyyi na la xel ndax lépp moom ci social lay dox beneen bi ci des mooy fa tabaarakallaahu lépp ci jàmm lay dox kon ñoo ngi ñaan le kaat yàlla yóbbuñ cee jàmm fii ci promenade des Thiessois. mbokk julli mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jull ci yonent bi sallallahu alayhi ku dégg kaddu fi jaar sa xel dem ci jàmbaar ka nga xamante ni daa jaayoon njuréelam jëndee ko Serigne Saliou Mbacke Bamba Khadim Rasoul soxna su tedd woote la 4 juin fan ñu promenade des Thiessois kuñ ci woo mboolem képp ku ne ashhadu an laa ilaaha illallah anna Muhammad rasulullah bis bi bisa waaye rawatina autorité nii ci dëkk bi maa ngi lay woo la allah rab ñu seeru soxna si teral ko sargal ko ci digg promenade ànd ak moom gunge ko ngir yàlla jëmmi Serigne Touba. rabbil alamin mbokk yi dégg ngeen ñi fi njëkk jaar li nu wax su ngeen gisee sunu toogaay xam ne am na lu xew fii lañ daan jóge di dem madinatu salaam di fekki soxna Aida Saliou Thioune tey nag yàlla dogal ci taw féex gi moom mu nar a jóge madina ñëw fii cees ñun waa cees ñi ko daan fekki yàlla na ñun ñu gàttandu ko dalal ko ñëw fii toog xaar ko ànd ak moom ndax loolu la ñu daan defal diine ko fii indi lislaam lay indi ñun waa Thiès ñëpp nañu génn kan la ñuy tayru soxna Aïda Saliou Thioune mi nga xam ne yërmande bëgg lu baax tey def lu baax xam lu baax te nekk ca ñu bàyyee ko ko kon moo fi war a ñëw la 4 juin incha allah rendez bi daal la 4 la fii ci promenade de Thiès waa ànd koog soxna Aïda Saliou Thioune ak taalibe yi julliti yàlla yi ak ñu bëgg lu baax ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu balakaat mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dégg kàddu yi ñu yëkkati nga xam ni bis bu rëy xew na ban bis moo xew le 4 juin fi ci Thiès ci koñ bi nga xamante ni bii fii lañ naan promenade de Thiès kan moo fi war a ñëw jàmbaar ja ki nga xamante ni bii Serigne Béthio moo simiku ci moom di soxna Aïda Saliou Thioune di nga xamante ni bi tax na daara yi xiifatuñu imaam yi sunnatuñu boroom xam-xam yi jaaxleetuñu waaye daara yi alxuraan yi sax réservétuñu ay kaña soxna Ayda ñu ngi ñaan suñu boroom yal na yàlla gën koo sàmm yal na yàlla gën koo aar bis bi nag la kat la ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo ku fi ñëw daa dégg njariñ waaye ku fi ñëw daa gis koo xamante ni bii boo ko gisee sa lépp baax ndax soxna Ayda jàmbaari diine la jàmbaari islaam la bi àdduna sosoo ba léegi kenn musta gis benn jigéen boo xamante ni bi ci mond bi chaque juma mu tibb ay berne jox jaami yàlla yëpp daaree alquran yeeg juma yeeg ñëpp di bége kon kooku nag moom la ñuy teeru fii ci dëkk bii di Thiès jànkeen maa ngi wax ni képp ku ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ñu ngi lay woo la kaat fii ci promenade de Thiès waa